OBF TV comme niñ leen ko baaxoo defee dimanche bu jot si waxtu wi seen rubrique jokkoo di dimanche tey nag ñu ngi fii si Mbacke si kër honorable Fatou Néné Ndiaye ñu gën ko xam madame Mbaye haute conseillère des collectivités territoriales ñu war waxtaan ak moom si ay pàcc yu bëri si politique si actualité nationale mais aussi si Touba ak Mbacke honorable haute conseillère ñu ngi lay bàyyi nga nuyoog mbokk yi internet yi. jërë ngeen jëf maa ngi leen di nuyu di nuyu ñuy seetaan BF TV. ngeen baal ma nag ma ziyaar sunu sang bu baax bi sëñ Muntaxa la xalif général ku lu murit di ko ndokkal ci màggal gi ñu génn di teg nuyoo bi sëñ mu tegal ma ko ci lëkkal sëñ Cheikh Mbàkke sëñ Saaliwu muy sama wasile borom kër di tegaat nuyoo bi ci loxo sëñ Mbàkke Falilu di ko jaal sunu waju jigen bi fi bayiko ko hmm. di beralaat nuyo nak sama borom keur nak nga xamni tay luma am moma di takuat nak di nek nak ci gannaawam nak te diko liggeyal diko di tarbiyu ta xamni munuma len hmm. awma len takuma len hmm. di talibe rek bu liggey serignam muy sama borom keur ta xamni fuma ag tay gannaaw yalla yontu beeg sëñ Tuubaa ak sama ñaari waajur moma jërë ngeen jëf jërëjëf nuyoo bi moom am na solo lool ñun tamit comme ni ko honorable defee dinañ jàll Serigne Cheikh Jëmb Fall di jàll son suñu abo di ñaan yàlla soxna maam say Fall moomu suuf Touba sedd sedd si comme di profité aussi di jaar le médiateur de la République Alioune Badara Cissé doom nga xam ne dafa dafa faatu États-Unis ñu war ko rob si Touba di ñaan yàlla suuf Touba sedd si ko honorable dañuy dañuy dañuy dañuy tàmbale suñu laaj tey si si màggalu Touba gi nga xam ne fi lañ jógee ñëpp gis nañ ne màggal gi am na benn problème boo xam ne am na si muy problème mu ndox foo jaar ñu ngi wax problème mu ndox ba président de la république bi mu fi ñëwee sax laataa màggal xamoon na loolu ba ne promettre na na màggalu déwén euh, dina def ay amélioration si ndoxu Touba mais est-ce que sept ans loo xam ne réglé wu ko est-ce que fii ak déwén jàpp nga n war na ko mën a réglé aussi. woy fàllu bala may ñëw ci loolu sax danga ma fàttali léegi sunu nattangoo buñ bokkool ci langue politique bi ñu médiateur hmm. Alioune Badara Cissé ci doomam ji léegi moom it maa ngi ko koy jaal bu wér a wér a di ñaan yàlla yàlla yokk leeram taaf ci ba te suuf tuuba oyof ci kawam maa ngi koy jàll sunu euh, nattangoo sunu responsable le médiateur de la république Alioune Badara Cissé hmm. waa fàllu ndox Touba bii nga wax wax nga ma ci ma lu ma neex loo xam ne xel na ñun amul lu sëñ Touba te sëñ Touba daf teg sunu xalifa bu baax bu tedd bi bu yaru bu dal bi bu am yërmande bi muy sëñ mu Mountakha wax lu rëy ci président Macky sàll lu daw yaram ni président Macky Sall bu ma la fayut sëñ Touba fay la te sëñ Touba ku mu la àq doo fanaan bitti gis nga ndox tuubaa bii ngay wax jiitu na fi Macky sàll jiitu na fi Macky sàll te président Macky Sall Touba rek ko ñor Touba rek la bëgg Touba rek la gëm Touba rek la yaakaar àdduna ak àllaaxira kon lu mu am lu nekk bu ñëpp gëmmee mu indi ko Touba boo xoolee ci ndox mi at yu ñu génn gënoon na fee metti te it am na jéego yu rëy yum ci def ci màggal gi ñu nekk màggal gi li fi ñëw ci million doomu aadama ah fàllu ndox Touba kon président Macky Sall jéego yu mu ci def ren defe naa ni bu déwenee jéego yi bu bàyyiwul dinañ dem ba ndox Touba dootul manqué te it am naa yaakaar ne président Macky Sall mu ci sembam bi li mu sémb xalaat ko ci Touba bu déwénee day gën a baax waaye du gën a deltu gannaaw te ndox mi lim ci def ren ci ay forage bu déwénee bu ko yokkaatee ci ay forage ndox Touba Euh, kenn dootu ko jooy te it Fallou damaa bëgg nag euh, ñu waxante dëgg nag yéen journaliste yi nag ngeen may ma nag Fallou boo xoolee sa kër gi nga dëkk ni ngay consommer tey boo amee gan ni ngay consommer muy neex ndox mi baawaan boo amoon tey ji xew tey ji consommation boobu tey fàllu bu dee dëgg la yàlla bëgg par rapport ak avant bi nga kiiyul day day day wàññeeku. Mm-hmm. boo xoolee Touba bu màggal amul ndox mi da ndox mi du am problème. Mm-hmm. ndox mi day xel nu la neexe fora forage yi dox ni ko neexee ah ñuy pàccax ndiku nu leen neexee kon bu ñu demee tey ba màggal am 4 mille plus de 4 millions de sénégalais daanu ci si biir dëkk bi ndox mën naa manqué. kon nan ko muñ. honorable ñun fi ñuy waxee mooy c'est-à-dire état dafa war di prévoir mais la moo tax mu xam ne Touba chaque màggal dafay am problème mu ndox mais ñu bàyyi aussi ba ba màggal na kët na jon ñu bëgg na nit ñi nañ xaar ba déwén pour ñu régler ko est-ce que loolu tam. non non non Fallou non non non non non non je ne suis pas d'accord avec toi Fallou parce que ndoxu Touba ren ji bu dee dëgg rek la yàlla bëgg li fi daje ci doomu aadama ak li ci état bi def mun naa mun na ko ndox bu manqué kon danoo war a muñ Tiwaawoon gee ndox dafay manqué. Ndiassane ndox dafay manqué Kaolack ndox dafay manqué fu nit di daje fokk ndox manqué mais nag l'appétit vient en mangeant ndànk-ndànk la président Macky Sall di mën a def ba tasi satisfaire ndox mi ba ndox mi dootul manqué Touba ndax boo xoolee ci at yi ñu weesu gë avant président Macky Sall di ñëw ci réew mi ndox dadaan daan manqué Touba kon ren jii diggante bi mu jotee man euh, bi mu jolee réew mi ak sept ans yi mu fi def ndox mi forage yi mu fi def ak yokk ndox mii mu fi def Fallou Xuma bu dee dëgg la yàlla bëgg danoo war a gërëm président Macky Sall mu gën a góor góorgóorlu bu déwénee li ñu nekk ren jii bu déwénee mu gën a wàññeeku wax ñoo dul bu dakkul dana mës a ñëw. bon euh, loolu dëgg la xam naa ne président moom ku ko tudd ngay bañ mais nag faaw aussi ñu leen di wax ne. Euh, état moom faaw muy prévoir quand donc loolu moom mais prévoir nañu Fallou dañoo prévoir. <laughs> état da prévoir. d'accord loolu loolu am na solo mais mais honorable dañuy ñëw nag si ba tey dañuy def si màggal Touba gis nañ président bi muy ñëw am na ay responsable sax yoo xam ne taxaw nañ wax ne président moo wax ne wala xalif bi moo wax ne jëruñ ñu koy accueillir mais à notre grande surprise gis nañ ko mel ne DG Kalaba gis nañ ko mel ne yow ngeen def accueil est-ce que wala mënu leen def ne comme seen morom yi aussi bañ a accueillir gannaaw président moo ko sàkku. très sincèrement man Fall mënuma comprendre sa question man président Macky Sall moo ma fal moo fal sama moroom moo tax ma dugg APR ma def salut de passage le président Moustapha Cissé Lo ndax man président Fall waxuma man politique mosuma ñor politique mosuma intéressé man liggéey rek laa xam ci social laay dund même bu ma bàyyi woon politique sociale ba ma nekkoon tey ji ca ma ciy continuer ndax yàlla nee na ku ma nekkal ma nekkal la territorial

muy taw muy naaj muy noor muy nawet bu fi ñëwaatoon tey jii rek ci ci ci di seet sëñ Muntaxa Mbàkke dama koy teeru bu demee feneen it bu fekkee ne am am naa possibilité bi teeru ko fa dama koy teeru ndax président de la république bu bu bu ñëpp bëggee ma ma mu bëgg ñëpp ñàkk. waaw mais est-ce que du est-ce gannaaw ñi nekk Mbàkke ñëpp la bëri bëri yow lañ ci gis quelques minutes ce que loolu tamit nekkul ak njëkkante aussi. man xëy na seen xel a toolu noonu mais man li ma sama xel may laay la laay sama xel li ma may laay def sama xel mooy président de la république mi ngi ñëw ci dëkk bi dinu fekk si. département Mbacké di suñu gën ñun ñëpp jox ma ndoom ba takk dama koy teeru dama koy teeru je l'assume maa ngi ciy félicité le directeur général Galoba ak le ministre Dame Diop ci teeru bi ñu ko teeru. accueillir nañ ko tax wóor na ma ni président de la république ma nekkuma ci xol waaye kontaan na ci ndax su sañoon tey ji buy ñëw ci dëkk bi ak ni mu bëggee euh, dëkk bi te bir na ma ni population Mbàkke surtout de le département kenn bañu sañu président de la république ñëpp ko bëgg ñëpp a ko bëgg kon wóor na man ci àdduna ñi génn tey ji teeru tey di saluer aussi sama militant yi ak sama militant yi de passage affaire bi jàmp na waaye bi ma leen woowee ñëw nanu waaw ñëw tey maa ngi leen di ci gërëm bu baax a baax a baax a baax a baax te di leen yokk sama fidélité di leen félicité ci teeru bi ñu ànd teerule ma président da ndax bi ma koy teeru sax sama yaram man ku ma gis nii ma mel sax man sama yaram néewu dama leen a bañ boo munta bañ a jël rek ndax gàntu naa journaliste yu baree baree bari ndax sama yaram te ñooñu dinaa leen woo jël leen dinaa lu mun ma invité émission dinaa leen dinaa leen jël ndax léegi maa ngi tane bu baax a baax a baax a baax a baax kon nag bu neexee yàlla li ma la wax mooy duma ci deltu gannaaw tey du man président de la république moo ma ñor man keneen ñoruma keneen ñoruma Macky Sall ma ñor Macky Sall fu ma woo wuyu ko lu ma sant ma def ko lu ma tere danaa ko bàyyi gannaaw sama borom kër. ngi si wax leer na. dugg nag si actualité national gis nañ ne fan yii moom état bi APR yëngu na. gis nañ ay hauts fonctionnaires dem comité de droit des nations unies wax fa ne état du Sénégal dinañ indemniser dinañ bàyyi Karim Wade dinañ danañ ko rétablir ab communiqué génn weddi loolu ñu toogaa tudd ab vidéo génn weddi la communiqué bi génn ba ñaar ñooñu dañu na mujj dàq est ce que loolu nag nekkul lu mën a ñagasal diggante Ablaye Wade ak Macky Sall waat gannaaw seen jubóo bi. daal man daal man daal je ne vous comprends le les journalistes vraiment man xaw man comme mënuma leen. <laughs> comprendre journalistes yi nag ñun dañ lay laaj question boobu. yow diggante Ablaye Wade ak Macky Sall diggante baay ak doom lu toll ni sëñ Mountakha Mbacké xalif général kulli murit defe ko ca inaugura inauguration Masalikul Jinaan jumaa yi sëñ Touba jooju nga xam ne ci Afrique occidentale kenn mës ta gis jumaa ju mel noonu. àdduna bi yëpp tase jullit yëpp tase sëñ Mountakha Mbacké def lu lu rëy loolu. def loolu nga xam ne xel ni moom la ñëpp doon séentu sëñ a Mbacké réussir ko def ko ah man de wax dëgg yàlla takku sëñ sëñ Mountakha Mbacké man ma madame Mbaye de duma ko tekki ndax affaire baay ak doom sëñ Mountakha def jëf ji mu jëf mu neex àdduna bépp neex jullit yi yëpp neex Sénégal gépp ñëpp teg ci seen bët ñëpp di ko rafetlu muy baay ak doom mu boole leen man de xaw ma lu ma ci xama yéem a gën a faste baay ak doom ñu juboo doon ànd doon benn ñun ñëpp ñu maggal kàddu sëñ Muntaxa Mbàkke googu ba Sénégal ba ba réew mi am jàmm. boo gisee ñu lay laaj loolu xam nga Abdoulaye Wade ñëpp wax nañ ne diggante jubam ak Macky Sall mënuñu see génne Karim Wade te Karim Wade ne wax nañ ne li Abdoulaye wadd bëgg mooy ñu amnistie ko mais ak nii mu demee nii est-ce que état du Sénégal tamit nii mu doxalee Karim Wade est-ce que du wóorul na firnde na Macky Sall moom pareewul pour amnistie Karim Wade. man daal li ma la mën a wax Fallou Xuma mooy bu dee dëgg rek la yàlla bëgg diggante baay ak doom ak rakam ay doomu baay man duma ci wax. man duma ci wax man madame Mbaye Macky Sall li mu bëgg laa bëgg man duma kenn Macky Sall la lu Macky Sall bëgg laa bëgg lu Macky sàll wax laa wax lu Macky waxul waxuma ko. loolu duma ci wax tey duma ci wax diggante baay ak doom ak rakkam ak ay doomu baay lanu ñoo xam ne ni tojo seen bopp janax noo xam ne ni wax bu juboo noo xam ne ni wax ba àndaat noo xam boo ni wax bu mu dikk Macky sàll Ablaye Wade Karim man duma ci wax tey duma ci wax la kooku fas sëñ Muntaxa Mbàkke la sëñ Muntaxa Mbàkke man lu mu fas dama koy ànd ak moom dëgëral ko waaye man duma ci wax. bon doo si wax mais xanaa di nga wax si xalifa Sall quand même. Khalifa Sall yi man ko naan loolu li ko indi lépp mooy wax sëñ Muntaxa Mbàkke bi rek mooy jëf sëñ Muntaxa Mbàkke bi rek lu rafet lii mu def ci Masaalikul Jinaan indi juboo ablay wad ak Macky Sall doom ak bay mo indi grâce Khalifa Sall nepp ci jubóo bi la di way jaram Macky Sall man damaa bëgg Macky Macky Sall yaa baax waay <laughs> Macky yaay talibé bon <laughs> xam nañ ne Macky Sall moom euh, lu mu wax rek nga wax alors gannaaw lu mu wax nga wax nag mënuñu ñàkk tudd troisième mandat bi fan yii moom yëngal na réew mi Macky Sall dafa melni ne la yor ku tudd troisième mandat mu dagg sa bop def nako Sori Kaba non Sori Kaba di moins yeen wayen APR ba señu leena wax ne Macky Sall amul droit def 3e mandat yi. yow xam nga waxati nga ma yeen ko xamni mi ngi sogo fallu falu bu sey ci kër amagu fi ñetti fan ni day day day yóbbi bagage am koku xana ko wax deug yalla di ngeen ko muñal tuti nak ah, Macky Sall amagul juroom ben weer wala bu ko amé ci lay yam mom mi ngi bëgg Sénégal bëgg Sénégal jëm ci kan bëgg liggéey mayagu len ko temps mu liggéey ah man dal yeen nag yeen waru man Sénégal da jaaxal na ma man Sénégal moo ma jaaxal man bëgg Macky Sall ngir lenn de liggéey bi muy liggéey tax ma bëgg ko ak bëgg gim Séné bëgg Sénégal ak fonk gim fonk Sénégal ak Sénégal fi mu nekkoon mu jëlee ko fa bëgg koo yóbbu fi réew bi baax yi nekk man loolu laa téye Macky Sall. waaw mais gannaaw moom moo taxaw kay ne moom bii mooy dernier mandat xanaa bu ko nit waxee kay jurul ma ko siy sanctionné. waaye dama ni la sanctionné wul sanctionné wul kenn sanctionné wul kenn Macky Sall daa toll ci changement. bëgg liggéey ku bëgg a liggéey nag dangay changé ñiy liggéey nga ànd ak ñoom ñu di liggéey nga teg leen fële. la nit bëgg liggéey am premier deuxième manda commencé gul sax ngeen koy ŋàññi di ko ŋàññi di ko ŋàññi te ngeen gis liggéey bu rafet bi Macky Sall liggéey gis li Macky Sall réalisé gis Macky sal li mu def ci réew mi gis Macky sal fa mu jëlee Sénégal bëgg koo yóbbu fi fi réew yu baax yi nekk. pour pour te pour te non man daal je ne vous comprends pas yow Macky Sall président qui a qui une ville. la ville de Diamniadio ah boo demee ñaajo tey kenn kenn bokk na ci réew mi tudd xoola teer bi ah teer bi barki Dembo Ndiaye ci ci ci ci ci jamono yi ci fii fii ñu nekk ci Sénégal Sénégal dañ daan xool teer ci yeneen réew yi Macky Sall indi ko fii non man daal man daal ah, man. mais mais madame Mbaye teer tamit dëw teer bi boobu léegi mu ngi gaare. ah, ah, ah ndar daa xëy sotti. ndar xëyul sotti di. waaw ah, kon lu mu doon inauguré. bañ a bañ ñoddil bu dakk dana mas a ñëw. ñoddil bu dakkul day ñëw. mais réew mi ni ñi ne nañ amul xaalis de moo tax teer bi gaar yëpp arrêté. teew mi réew bi amul xaalis. ak Sénégal fi mu toll léegi. loolu la gars yi wax de. ngeen ni réew mi ak Sénégal fi mu toll léegi. ay waay leen yàlla waaye journaliste yi. <laughs> waaye journaliste yi ragal leen yàlla yéen lu yàqu ci dëkk bi yéen ko yàq ah. <laughs> ngeen fi mu toll léegi senegal fi mu toll ak fi senegal nekkoon ana xuyu ka maj yéen a ngi di ma caméra toolu nga stade boo xam ne mun leen a caméra wax leen. waaw ah, mais loolu da war mu def ko. ma ni déedéet ma ni du lu war nit ki mu def ko bu ñëpp damay am ku géddub cëram avancement moo am ci réew mi ana ceeb bi daa yokk ana courant bi dafa yokk. ana ndox mi dafa yokk kuy kamaj yëpp tàggoon na nag moom couverture maladie universelle temps yokk na gasoil ma ni li tax ba du ma ni Ousmane Sonko nee na fan yii danañ yokk essence bi de ma ni moo wax wax Ousmane Sonko man waxuma wax Ousmane Sonko wax Macky Sall laa wax li mu def ci réew mi man loolu laa gëm loolu laay wax man waxuma Ousmane Sonko waxuma waxu keneen lu ne fànn kenn du ko laam-laamee Macky Sall dafa liggéey nan ko bàyyi mu liggéey Macky Sall doom boo xoolee Macky Sall li mu déclaration yi mu def billaay kum daw yaram sa yaram du daw Macky Sall lan la wax moom wax na fi mu jaar ba agsi fii barke Serigne Fallou ku moytuwul Macky Sall laax dina la lakk Macky Sall wax na fi mu jaar ba agsi fii koo xam ne xel nëbbul paaseem ak fa mu jaar ba agsi fii Macky Sall ku ko laal laax lakk lakk nan ko moytu. mais nak c'est le président de la république mënu fe nek aussi constitution bi wax am lu tek te ken du ko tudd kon yow tay bu Macky Sall doon def 3e mandat ni ñu la déggee da ko ci jappal déggoo li mala wax Macky Sall bokk 3e mandat man du ko wax du ko wax te ndax Macky Sall wax ko nit ñay wax rek. nit ñi ñoy wax rek waye Macky Sall deful ben déclaration 3e mandat nit ñi ñoy wax kuy wax nak dañ lay bayyi ngay wax kuy jëf mom dañ lay bayyi ngay Macky Sall xam moom talu wax jëf rek la xam. Macky Sall jëf ak inauguré rek la xam. jëf ak inauguré ak lu tax Sénégal jëm ci kanam xaar ci kanam tuuti. xaar ci kanam tuuti li ñu liggéey ñu ngi ci ñu ngi liggéey di dem xanaa kenn mënut a xëy te li nga inauguré parewul Macky Sall mi ngi liggéey di dem Macky Sall boolewul daraa ki wax soxnaam boolewul dara ki wax Macky Sall bu ngeen xoolee soxnaam Marème Faye Sall très franchement man en tant que femme billaay wallaay wa taala c'est pour c'est pas pour jeter des fleurs à Marème Faye Sall mais man dama koo ñee Marème Faye Sall ñëpp ko ñaanal ñëpp a ko ñaanal même jigéen ñi nga xam ne ànd noog ñoom sax dan koo fan mais fondation boobu mënuma la see ñàkk laaj gars yi wax nañ fi muy jëlee xaalis bi Marème ni muy ni muy tasaaree xaalis bëri na trop. waa ma ne da koo ta ma ndax da koo tasaare ci ay wax da tasaare ci jëf de. loo xam ne bu ko defee euh, société bi gis ci boppam loolu lay liggéey moo ko soxnaam ngeen du fi amee yéen lu ngeen bëgg. bu bu ñun waxal askan bi ñun. Ah, askan bi yéen kat yéenay askan wi ci ngeen bokk yéen yéen askan wi ci ngeen bokk di yenn lu ngeen bëgg kuy def lu baax ngeen duñ ko wax kuy def lu baax. ngeen duñ ko waxtaane kuy def lu baax ngeen duñ ko koo waxtaane léegi léegi léegi xamoo ndax dinañ ko fekkeem déet. la c'est que Guinée dañoo gis réew mu ñu jógee Guinée président ba ne day. ñun waxuñu waxu Guinée waxu mani mani ñun waxuñu waxu Guinée waxu Sénégal lan wax da ngeen xaar ba Macky Sall def ko Macky Sall da ko defagul di Macky Sall waxagu ko ñu ànd ak moom waxuñu ko man mi sax Macky Sall waxuma ko mooy lu wax. cadre Macky Sall lan wax Macky Sall ci boppam Sénégal a ko ñor waxagul waxu de troisième mandat waxagul waxu quatrième mandat waxagul waxu cinquième bi mu nekk lay ñaan yàlla mu àggale ko jàmm te réussir ko ba Sénégal yi gis seen bopp. man loolu laa gëm. te loolu laa gisit Macky Sall di ko dox ak ñun. troisième mandat bi moom xam naa ne daanaka moom nanguwu leen si wax yéen waa APR waaye waaye dina leer suñ kanam. alors gis nañ Idrissa Seck ma dikkee ñaa Issa Sall ñu formé fan yi forum bu bees. pour opposition bi est-ce que nag ñëw biñ nar a ñëw nuru ñëw dal seen kaw. waaye xam nga man gis na Sénégal dama cee gisagul opposition bu dëgër bu mën a affronter Macky sa Idrissa Seck ma dikkee waaye xool ban du ñoo ngi fi woon te gañe wuñu ñoo ngi fi woon te gañe wuñu élection yi. mais buñ àndee. Macky Sall da koo gañe avec majorité absolue 58 pour cent da leen la dóor dóoraat ñu jàll. bu demee ba élection municipale daneen dóor dóoraat sénégalais yi ñoo bëgg Macky Sall surtout les femmes ma di ci saluer de passage Ndeye Saly Diop Dieng jigéen ñi rek buñ takkoo lu Macky Sall bëgg dañ koy am te takku noonu nekk ci gannaaw Ndeye Saly Dieng pour jàppale ko mu ñu falaat Macky Sall ci lu mu bëgg nag waaye deuxième man troisième mandat kenn waxagul wax man Idrissa Seck ko ay euh, nu mu tudd Khalifa Sall ay ñeneen ñi ngay wax ñoo ñëpp ay sonkook ñoo ñëpp xam nga man lu ma ñor man président Macky Sall liggéey bi muy liggéey pour Sénégal gis ci boppam Sénégal mel ni leen réew mi développé rafet richesse man loolu laa gis xool Macky Sall te kaay ma la benn banque billaay Macky Sall mi ko woytuwul xam daa jig Sénégalais yi de ak jig Sénégal pétrole bi bënn na di. pétrole bi yàgg na ah, waaye moo ko ko génne. mais moo ko génne yàggoon na fi te kenn kenn déet mënu cee def dara. pétrole ñaata dama lay laaj pétrole bi kenn nee na jaay ngeen ko toj ñëw pétrole bi nee na jaay ma yàqu di daa tax may tey madame madame madame dem. ñi baax ni da bëgg nañ koy dem waaye ñi bon ñoom yàq rek yàq leen tax a ku yàq tax a jóg moom kenn mënu ci yow dara. pétrole bi dafa jik Sénégal gaz bi moo ko génne ay président jaaroon na fi du ma tudd tur mais jaaroon nañ fi mais ci yoonu Macky Sall wi mandat Macky Sall bi ci pétrole feeñ ci premier mandat deuxième mandat mu commencé di ko exploiter trois deuxième mandat bi jot président Macky Sall dem ca kaw wuti ay bailleur yoo xam mën nanoo génne pétrole bi Sénégal gis ci boppam nu ko naam ñu commencé koo ngàññi seen làmmiñ yàlla buñ ca dugg nan ñaan yàlla président Macky Sall xam nga Sénégal noonu war a def tapis rouge Macky Sall. est-ce que a ñaan yàlla Macky Sall lu jubal nag si pétrole bi. Macky Sall waaye jubal mën naa wees li Macky Sall di def. jubal man naa wees li Macky Sall ana Sonko mu doon wax euh, euh, France si ak nangam nang nangam nang ah noppalu na di. bon kenn waxatu ko di. dégg naa léegi nga tudd élection municipale mu see ñàkk a tudd tax li ñu may si waxtu léegi mu jeex élection municipale reporté nañ ko mais Mbacké. yéen Mbàkke moom dafa mel ni moom gars yi dañoo yor seen i fett rek di leen xaar APR fu mu jógee rek ñu fett yéen moom dafa mel ne moom mu leen am Mbàkke Touba dara dara dara dara ban problème moo fa am. amuñu benn problème ci Mbàkke Touba ak masala de passage toute la population de de Mbàkke Bawol les seize communes mais yow bu dee dëgg rek la yàlla bëgg ñun dañu santaan yàlla dañuy santaan yàlla jur Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa gis nga gi ñu nekk li wóor wóor mooy li ci kanam la ñuy wax li ci gannaaw la waaye li ci kanam déedéet déclaration Mountakha Mbacké bii li mu wax barki démb ci gal gi waxoon ko ci élection ni Macky mu ne ko naa mu ne ko bu ma la sëñ Touba ñaanal boppam moo lay fal boppam na ko mu ñëwati màggal Touba ren ji confirmé ko ci Mbacké Bawol Mbacké nee naa la la passé la ñu rocc waaye du li ñu jëm du wóotu wóor li ñu jëm Mbàkke Bawol Macky Sall dina ci gisaat boppam ba ñëpp xam ne gis na ci boppam. yow élection municipale candidat nga ru Mbàkke. man du ma candidat de. man fu mais xanaa toog di du ma candidat fu président makk Sall rek jublu laa jublu te xam naa président makk Sall dina jublu ci ki ki ki ki ki ki ki ki nu àndal. te bu jubloo ci kenn kànd bu nu jàppale dañu gañ Mbàkke. ñeen àndal yéen Mbàkke man Galo Ba laa àndal. Galo Ba jàpp nga ne mën naa gañ Mbàkke ji. yal na yàlla yónni yàgg. ah nee nañ na élection ñett yoon ñàkk ko de. man sama yoon nekku ca loolu waaye man gisagu ma man àndaguma ak moom élection. ñu jàpp ngeen élection municipale mën ngeen fi jël maire bii fi ne. ah man yàlla yàllaa xam li ñëw ëllëg waaye daal man li wóotu woor mooy ñu ngi ci terrain bi di liggéey te bu ñu liggéey ci terrain bi bu neexee yàlla suñu borom mën na cee may mën nañ cee may ndam. madame Mbaye temps bi ñu répartir woon jeex na ñu bàyyi la nga tàggook mbokk yi internet yi. waaw maa ngi tàggoog mbokk yi di gërëm ñëpp di sant ñëpp di sant sama borom kër mi nga xam tey moo ma permettre ma toog fii di wax ak yéen te bu ma laabirawuloon ma toog fii di wax ak yéen du ma wax ak yéen di sant militants yi sympathisants yi ñi nga xam ni militants yi sympathisants yi nga xam ni ñoo permettre ñoo may lii ma am tey di nuyu nag de passage Moustapha Cissé Lo mi nga xam ne moom ma dugal ci politique indi ma ma jàppale président Macky Sall ànd ak moom di liggéey. di encore de passage le directeur général Galoba di nuyu le maire Abdou Ndaw Cheikh Abdou Bali di le ministre Dame Diop di le ministre de la femme Femme de Diop ak de la mu àndal di nuyu de Marème Badiane mi fi ministre de la ministre euh, présidente nationale des femmes. les maires de ak des communes di ko ci lox élage ba bu kayal mu tegal ma ci loxo ñëpp. Mhm. bàyyiwuma ñëpp. Mhm. di gërëm ñëpp di sant ñëpp. Mhm. duma kenn Macky Sall laa tey Macky Sall laa suba Macky Sall laa tey ba ëllëg lu ko laal laal ma lu ko laal laalaale ma fu mu jëm laa jëm fu ma jëmul jël jëw fa jërë ngeen jëf. jërëjëf émission bi am na solo vraiment sant nañ bu baax di la gërëm aussi si si si dal bi dal yow moom suñu yaay nga vraiment suñu lépp nga donc ñiy seetaan BFTV ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen wax ne mën ngeen ko seetaan si www point bft point bftv point sn chaque dimanche à partir de midi ñu ngi leen di sant di leen gërëm ba dimanche prochain jërë ngeen jëf.